Salut les amis de eSport TV, merci encore Gaël de la confiance renouvelée, merci Louis du like, merci Louis des abonné, merci également du bail les des commentaires, toujours un plaisir Gaël de vous servir, des wargain Louis des abonnés, des bouches cloche de notification pour d'autres vidéos en avance, ensemble, Bepou Domi Sénégalais, en fait, faut monter les 14 régions du Sénégal, Rokurukhadi, Gorgohadi, Ningley, Djadjefa, Ninek également qui Afrique, ah, World Cup, partout là, Ninek également qui Adon Biepa, Gaï, États-Unis, Amérique, Asie, Bruxelles, Canada, ah, FEPA, ah, Ningley, Wargaï, on avance, ensemble, Nito de chez l'hôpital, Yak, Chikeri, Février, nous foofu ñu wér ak ñu nekk si kaso yi ñu leen benn yoon di leen ñaan ngeen génn fa ñu dëddu àdduna suñu borom xare leen àjjana fiir daw si mbokki Sénégal yi donc aujourd'hui par rapport à l'actualité gars yi dañuy wax ci li nga xam ne mooy jëm ci donc ñii di donc euh, équipe nationale du Sénégal mercato bi ak aussi ki nga xam ne mooy donc euh, euh, Edouard Mendy mais aussi match amical bi gars yi doon wax ñenn ñi naan donc Sénégal dafa war a jouer ak Brésil tout loolu yëpp nañ ci indi ay leeral lañ ci mën a wax rek mooy que ne ki nga xam ne mooy président fédération bu Maroc moom am na lu mu wax jëm ci Sadio Mané ak waa génération foot wax na aussi li nga xam ne mooy match amical yi nga xam ne ñoom war nañ ko jouer ak aussi FIFA FIFA ak taxawaay bi nga xam ne war nañ ko am ci football africain bi loolu yëpp ay leeral la pendant ce temps également gars il faut savoir que matchs au Sénégal Brésil bi Brésil nak dafa mel dafa zappé équipe nationale du Sénégal yéen kay bi nak di stade sen xët gu ñëk ñom la tambalé ñu né le Real Assom Chelsea le Bayern tombe à Villarreal gars yi wax ci également ci nga xamné moy ñoom té bi nga xamné ne Edouard Mendy daal nakoy def ak aussi match yi nga xamné ne war na am tay notamment match bi ñëpp di xaar di diggante donc Leipzig Atalanta ak euh, Francfort ak FC Barcelone yéen kay bi di record jël xëtam gu ñëk daal koy jox ki nga xamné moy nak Lum Loum Ndiaye mu ne comment nous avons gagné la CAN 2021 wax ci aussi nga xamné ne donc la le Francfort qui défie le FC Barcelone, Benzema qui plane au-dessus donc de Chelsea loolu nek sen Il gu yene kay bi nag également di Rewmi Sport wax ne l'énorme boulette de Mendy la FIFA veut des matchs de 100 minutes également wax ci li nga xam moy corruption bi nga xam ne koy nemmeeku ci yenn euh, milliers ah. donc jëm ci aussi li nga xam moy donc walum lamb ji hein ak ki nga xam ne combat bu ñëpp doon xaar diggante ki di Reug Reug ak donc Sa donc sunu lamb le meilleur combat de la décennie Sa Reug Reug 14 victoires et 16 combats chacun wax ci aussi nga xam cité moy peut-il avoir un si caché 50 millions lañ ko proposé plus de 50 millions bokk lay laaj pour man dajek Papa Sow ñox wax également pour Ama Neex est très attendu wax ci combat bi nga xamne mom nak mom moom Ama Neex dafa dajek rek rek yene kay bi di l'équipe ni triplé d'or pour wax aujourd'hui ki nga xamne moy donc Karim Benzema mo encore dañ né triplé bi tax na muy gëna a li nga xam ne ballon d'or bi gannaaw bi nga xamee gën contre Paris Saint-Germain def na lu ni mel démb aussi contre Chelsea mu wat bopam ak Edouard Mendy bi nga xamne def na ben erreur boo xam gaay gars fi ni ñepp ñëpp acharné wu ci mom ba ñu may ko note 3 li nga xamne nak moy jëm ci VAR bi gaay ni ma ko waxoon par rapport ak VAR bi donc je concours et ça démarre ce week-end par rapport au meilleur hein, donc euh, qui gagne nak am donc dina wax donc aussi euh, bientôt le nom de la personne bi nga xam nga xam mais d'abord mercato félicitations à Diambar que Ousseynou Niang également ak Bachir Ngom aussi donc euh, Gaï donc nous ñet ñep dem nañ ci donc mercato bi donc ci niveau de Diambar Diambar am sen jour yu bëri yo xam dal sen ñi ngi di dem et je pense que c'est une bonne chose pour les jeunes mais aussi c'est une mauvaise chose pour le championnat du Sénégal parce que dañuy perdre ay joueurs de talent mais quand même c'est de bonne guerre comme on le dit Thibaut Courtois mom dafa défendre Edouard nga Mendy mu ne loolu noonu mën na dal ku nekk ah lii dal Edouard Mendy na dal ku nekk Edouard Mendy c'est un très grand gardien moom moo jox Chelsea daw euh, Ligue des champions aussi génne leen ci match yu bëri donc loolu moom sax dal na ko ndax bu ñu fàtte ne am na jamono xam ne ñëpp a ko doon critiquer ak match bi nga xam ne contre Lionel Messi am na ñu fa gisoon moom aussi nee na Edouard Mendy c'est un gardien boo xam ne lu ñu mel da koy gën a renforcer da koy gën a jox fula ak fayda mu gën a également travailler gën a aussi gëm boppam xam ne aussi football am na ay haut am na ay bas et Edouard Mendy xam na loolu parce que moom euh, Pôle emploi la jógee ba yegg si fii donc loolu ñu mel mais il faut rappeler également que Manuel Neuer hein, également 6 buts contre la Roja contre Espagne 6 buts pour Manuel Neuer bi nga meilleur gardien du monde ou parmi les meilleurs gardiens du monde dal il montrer que Edouard Mendy a fait une gaffe il a pris 3 euh, buts donc l'OL hein. donc compétition et il y a aussi gardien hein, Areola plutôt Areola nga West Ham lañ Paris Saint-Germain option d'achat pour d'ailleurs, mais Aston Villa aussi hein, Fulham Fulham aussi notamment ñu pour mais Paris Saint-Germain mi joyeux anniversaire également à Franck Ribéry hein, le l'un des meilleurs joueurs du Bayern de Munich une légende au niveau du Bayern de Munich et de l'équipe de France et aussi du côté de euh, donc Marseille Franck Ribéry nga aujourd'hui donc il va il est toujours euh, plutôt hein, carrière am mais quand il a marqué l'histoire du football et aussi qui hein, dit Bernard Lama qui fête ses 59 ans l'ancien gardien mythique du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France Bernard Lama aussi un grand monsieur boo il fait partie des initiateurs yi nga projet jàmbaar bi Sénégal bokkoon na l'ambassadeur ambassadeurs yi ba pour la promotion du football sénégalais et du football mondial li ngeen gis na gars yi échantillon parce que Qatar Airways ñoom dañoo bëgg sponsor officiel également de ci nga Paris Saint-Germain gannaaw bi nga xam ne nag ñoom seen à Jordan Air Jordan yi waa Paris Saint-Germain fi ni Qatar Airways daal moom moo bëgg ñëw dugg ci donc ci concurrence bi que sponsor peut-être l'année prochaine bu Paris Saint-Germain et aussi aussi hein, ki nga de Kun ans Manchester City Manchester City amal contre Queen's Rangers bëgg bi nga dañ ko ki Kun une légende au niveau du euh, euh, de Manchester City, centième match en Ligue des Champions pour David Alaba. David Alaba, bon, il a, il a été très déterminant. match on a également, c'est un très grand défenseur. Donc David Alaba, donc aujourd'hui, donc euh, qui a fêté son centième match en Ligue des Champions, notamment du côté du Real de Madrid. Et qui a également Karim Benzema. Hein, donc pour le Real de Madrid cette saison, 36 matchs, 37 buts, 13 passes décisives, Benzegol, Benzegol, Casillas dafa né mom hein, voilà c'est un géant, c'est un ami xam lépp la ci football lo amul qualificatif bo xamné joxuko dal ki nga xamné moy Karim Benzema ci par rapport ak performance bi mu def Asensio nag fi mu ne Paolo Maldini mom la def priorité du côté de Milan AC fimné ni Milan mom waxuñu kenn ci ko dul Asensio Asensio mi nga xamné aussi Arsenal mi ngi ci ginaaw mais fimné ni wa Milan mom mom lañu jël def ko sen priorité ne Asensio na fa ñëw dal di jouer parce que aujourd'hui perte la mu nekk ci Real Madrid bo xamné duñ ko utiliser alors qu'il a un énorme talent ki nga gis né également Lo Celso Lo Celso dafa mel ne moom Espagne moko jik hein ah, mom mom Paris Saint-Germain la jóge woon après mu dem fa nga xamné nak mom moy mooy donc Tottenham fimné ni mi nga nak ci Villarreal dem mom lañu élire homme du match diganté Villarreal ak euh, ki nga donc euh, Bayern de Munich donc pour moi, c'est un très très grand joueur le joueur argentin mais tamit ñu wax conscience constance la amul parce que c'était un jeune prometteur et aussi du côté du Bayern de Munich Serge Gnabry nga xam actuellement 15 millions par an la ko Bayern di fay mom nak néna bëggatul 15 millions 18 millions la 20 millions motax fini une prolongation en ba léegi prolongation amagul motax nak équipe bi de Madrid Barcelone Manchester Paris Saint-Germain ñu bëri daal ñu ngi si ginnaaw bi di xool situation am ki nga gis nag di Anthony nekk si Ajax Amsterdam fi mu ne nag club yu bëri notamment Bayern mi ngi si ginnaaw ak waa Premier League waa Arsenal waa Liverpool ñu bëri ci moom waaye fi mu ne Ajax ñoom dañoo bëgg téye ko bëgguñu mu dem parce que bokk na ci cadre yi nekk na ci jeune pépite yoo xam ne c'est un jeune prometteur l'international brésilien Anthony qui continue à faire des ravages Tottenham nga xam ne actuellement aussi seen benn ancien joueur nga xam ne actuellement mi ngi ci Brentford nga xam ne problème cardiaque moo taxoon mu éloigné ko gisoon ngeen euro bi ni mu fa demee woon et tout muy ki xam ne Christensen plutôt euh, Eriksen Eriksen actuellement donc ñi nga xam moy Tottenham dañu bëgg sonal les informations ñu koy surveiller du xol na la état ak situation bi évoluer peut-être pour rapatrier ko mu daal dellu ci fofu non gëna bu mu fa joggé won dem ci Inter de Milan kene gis ne nak di Ralf Rangnick euh, plutôt man Ralf Rangnick donc actuellement donc Eric Ten Hag Eric Ten Hag nak actuellement mo nek entraîneur ki nga xam moy donc euh, ca euh, Ajax mo remplacer Ralf Rangnick lolu gay wax mom nak né nañ priorité moy ben attaquant ak ñaari milieu de terrain le soxla mom mi nga xam mom moom la ñu moy successeur ki nga xam moy Ralf Rangnick et pendant ce temps aussi hein ki nga xam moy Everton boo tu Everton après 68

waxoon nañ fi démb li nga xam mooy cent minutes yi après mu démentir ko selon les dernières informations données également par le journal de Sun nee nañ moom mi nga xam ne actuellement donc gannaaw proposition deux ans pour coupe du monde daf ko bëgg a def trois ans léegi tous les trois ans coupe du monde di am loolu mooy projet bu bees boo xam ne Gianni Infantino bëgg na ko def ki nga gis ni également di Fawzi Kenza donc actuellement nekk l'exa nekk le président de la fédération marocaine donc Fawzi nee na moom actuellement donc gis na ne football africain daal profité wuñ dara ci li nga xam ne mooy koppar gi dugg nee na nekk na boo xam ne compétition africaine boo ko organisé Ligue des champions boo ko gagné ki ko gagné day endetté gagné dara day perte peut-être et que dana xam ne normal wax na aussi ci li nga xam ne mooy kaaw yenn joueurs nga xam ne dañuy nekk ñu formé leen seen dëkk bu ñu demee ci Europe seen i yi seen club duñu ci profité wax na kaaw Sadio parce que nee aujourd'hui génération foot moo formé ay joueurs yu bëri notamment Sadio aujourd'hui machallah il coûte selon moom nee na valeur marchandam deux cent d'euros egg fa mais tey booy seet malheureusement ci am saa su nekk xaalis moom loolu et pour moi c'est une bonne chose que tu moom muy défendre li nga xamou idéo aussi wax na loo aussi gars yi day permettre aussi gars yi ñu démentir ñi gars yi actuellement Brésil ak Sénégal dañuy jouer lolu pour l'instant officiellement amul ne source bu ko joxé ce qui est sûr moi que le président fédération bu Maroc néna mom actuellement amna accord de principe le président bu fédération bu Brésil pour match amical entre euh, Brésil ak Maroc Brésil nga xam dafa wara dajé Cameroun motax actuellement donc le match entre le Sénégal et le Brésil du mën amagul mais officiellement aucune information de ce genre n'a été communiquée ce qui a été communiqué communiqué wa Maroc actuellement ñom ñi ngi préparé pour un match amical entre Brésil et Maroc Nous nak nek na match bo xam dina Marocains parce que aussi né mëna tax ñu préparer préparé ci coupe du monde Sénégal aussi dommage hein, dommage nous na am match bu mel pour nous préparer parce que Brésil actuellement c'est la première équipe hein, mondiale le classement mondial mo nek numéro 1. donc match yu ni mel da non permettre aussi Sénégal mëna jouer au niveau de dëggantaan Aliou c'est testé ay lu baisse, mais aussi xol par rapport à des équipes offensives dans le Sénégal d'évoluer. C'est un match bi nous nak nekkoon na match bu neex parce que nous témboon un but partout Brésil moo njëkkoon dugal après ki xam ne nag mooy Sadio Mané indi penalty euh, kii moo ko dugaloon Famara Diédhiou Donc aujourd'hui, en tout cas, c'est le match entre le Maroc et le Brésil. Bob nous confirmé sur le principe. président Maroc, travaille La fédération sénégalaise n'a pas encore communiqué sur match éventuel entre le Sénégal et le Brésil. Je ne dis pas que nous mais pour l'instant, aucune information officielle n'a été donnée. Donc pour l'instant, je japonais Amogul, Ben Yon, le Brésil, le Maroc, amal accord de principe pour d'aller jouer avec moi pour information bilaire. En tout cas, à Lucie, c'est également amené une information. le Sénégal, il y a une équipe aussi du coup ciblé. L'Olmonek, prochain sujet également, jours, jour en tout cas les gars c'était toujours un plaisir de vous servir N'oubliez pas ko toujours woy des et surtout n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour avoir toutes les informations concernant l'équipe nationale du Sénégal et le football sénégalais de manière générale et mondiale Gaï, yi Gen, dieu au plaisir